korok gay modum gecci o haj ibrahim gay yef ya nga xëccu di jëm ci jeex haj ibrahim di xëcc rek ngir mu jeex na ba yef yi tambale ba neug ni haj ibrahim mu ngi jeex ngir daj yef yi waye du ben ba se bu mu ne ci o dg melokanam neexu ko jéeme na nu ne sheytane gantal waye du décourager ba muko mo nga war ci koor ga wat fam tegoon di ñaan rek boole koko ay astaghfirullah yu di dóor aoudubillahi mina sheytaan rajim u xaaj ibrahim ñaan googa la waaye nag fa ko fàtte woon ne seytaane noonu lees koy dàqee moo ngi ci biir rajo bi di liggéey liggéeyam léeg-léeg mu yeddaat boppam no buy soo ko toju doo ko jëriñu waaye it maladie soo ko wanewul du faju mais man sama employé yi nekk ci rajo bi yëpp amuñu problème ci koor gi mais kon man li ma dal la feebar la feebar la o xaaj ibrahim moo ngi waxtaan ak xelam est ce que du ma demee hôpital naka xalaat ne sa feebar oustaz aka dindi du yëfu l'hôpital o xaaj ibrahim ca saa xelam daj ci cheikh mouhamad mun xamina cheikh ibrahim Niass xaritam ba moo ngi dëgg ay tànkam jubali lew na xaaj mu munoon ngaa war daamaar rek waaye naka mu yeg naaj bi tàng jër mu gapp reku ci ron sëriñ bi boole kooku toqali ay rankoñ <laughs> Niass boobu dimbalul du baax de li may deg lepp ci mu kàlla bu warut mbugal lolou bu dene sama kaw dina metti de te deg na sa wajur ba waxon ku ko liggéeyal mu fay la legi ya fa ne serigne bi ñaanal ba Cheikh mohammed mun Hamina tamane man xam nga dama masla sa caaxaan nga wara bayyi nit boko ko dimbalé deug nga koy wax ponkal mu doyna yow sa morom doom yi di wor nga nan ay dugg na fi genn na fi lolou mu ma comprendre yalla lay mu wax dafa leer bo tayé dog ko kafaara war na la koor jamu yalla la nam mais sa wér gu yaram la sa montre bi sa montre auto bi léegi-léegi mu pan mais yow li ngay ngay lekk 24 heures sur 24 7 sur 7 liy daw sa yaram bi yëpp weer ñu la nga noppal ko loolu suñu borom moo ñu gën a xam lu baax la ñu bëggal o xaaj Ibrahim <laughs> sëriñ bi bul ma doggali li ngay wax yëpp dëgg la waaye dootul amati ñaanal ma de o oh, Cheikh mun xamina ñaan gi wax la dëgg soo paree mën nga jóg dem yàlla dina la sàmm waaye nag mburum koor bul ko fàttee génne borom kër gu ne moo koy génneel njabootam ak képp koo xam ne dundam daf la war deux kilogrammes quarante wala sax deux kilo cinquante si ceeb wala dugub wala lu ëpp lu waa dëkk bi di jëfandikoo mais nag génne bi ngay fexe nga génne ko ci bésu korite avant imam julli su ko weesoo rek sarax la mën nga joxe sax benn bés avant laataa muy dem Cheikh Mouhamed yóbbal benn verre la ko defal ndox kastel ko ko ngir bu dogee mu raayoo ci guux ci ñetti guux DG gëmewu ko naka mu yegsee rek di dugg kër ga tombeeg madame Gaye Haaj Ibrahim tey moom dara nga sol lu ma jël moom bëriwut xoolal li ñaari jasineer 12 mètres muy vint 24 ak xale yeeg waa kër gi ku ne 3 mètres mu nekk 15 mètres daal yi moom per 50 mille cheveux bi mooy teg xam na après laataa muy yeggali butéel ba ne rajax DG dellu siwaat <laughs> sa butéel regama regama o xaaj ibrahim ndox maa ngi dem ca xel ma day yóbbaale ñaan gi tax na DG teg ca ñaari loxo yi raayo tànk ci it guux ay guuxam